asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah jeudi 31 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom dafa xëy ñëw ci ñaari mbër yoo xam ne géejawaay la ñuy yeewoo muy Balla Gaye numéro de ancien roi des arènes le lion de géejawaay Lac de Guerre numéro la jato wala le penseur yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ci loo xam ne daal lu mu jàppee lu mënta nekk la bokk wala loo xam ne daal dafa ñëw ci ñoom ci seen carrière boo xoolee bañ duggee ci lamb ak fi ñu toll tey la jot a gañe ci ay ndam ak i ak i match nul yëglikaay bi bu dee Lac de numéro 2 la mu ngi ñëw ci lamb ji jàppal le 25 décembre 2004 njëkk bëre ak Mansour Diop numéro 2 Balla gay numéro 2 ñëw ci làmb ji la nga xam ne ni moom moo di le 2 janvier 2005 njëkk bëre ak ka nga xam ne moom moo di Samba Law bi yëg li kaay bi na nag bëggee dégg dëgg ci ay at moom Balla Gaye numéro 2 Lac moo ko mag ndax Lac mu ngi am 38 ans fanweeri at ak juróom-ñett Balla mu ngi am 34 ans fanweeri at ak ñeent yëg li kaay bi ñëw ci seen carrière boo xoolee kon Balla Gaye mu ngi ci 15 ans de carrière Lac mu ngi ci 16 ans de carrière sunu làmb ba tey moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu ay combat kii di Balla am na ci lu toll ci 25 lak am ju toll ci 18 boo xoolee seen ay ndam nag yëg likaay bi na Balla Gaye numéro 2 mu ngi ci 21 victoire Lac de Guiers numéro 2 mu ngi ci 13 ay défaite moom boo xoolee Balla gàddu na ca lu tollu ci ñeenti défaite lag de Guiers numéro 2 boo xoolee am na ci lu toll ci ñaar ay match nii nag moom Lac am na ca ñaar yëg likaay bi moo ñëw wax nu ko bu dee Balla moom mësta niil ci li nga xam ne nii moom moo di lambam sans verdict tamit lag am na ca benn wàllum kalaf tamit boo xoolee Balla gañe na ko benn lag gañe ko benn prix wu fair play moom mu mel ne ki Lac de Guiers numéro 2 moo ko am waaye Balla amu ko roi des arènes itam Balla ko am ak prix wu ANPS bu bàyyi tey Balla moo ko am waaye Lac de Guiers numéro 2 tamit ba tey gañewul lu mel ni ki loon mel ni ki sunu lamb daal tey xëy na toppal ñu ñaar ñooñu keneen koo xam ne nii moom maanaam idole la ci kenn ki muy Mohamed Ndaw Tyson di idolu Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi xëy na tey tamit toppal ñu ko ak ay bés yoo xam ne nii daal ñu ngi ko cay fàttaleku ay bés yoo xam ne bañ ca tolloo wane na ca boppam diggante mag Mouhamed Ali ba ñu jàmmarloo kaw ba nga xam ne defoon na ko ko diggante mag Manga 2 la mu defante woon ak moom ca stade Léopold Senghor waaye tamit moom ndem si yàlla mel ni ki moom Tyson moom tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak parmelesam boo xoolee yëglikaay bi ne a bëree le bi ñëw na ci moom ak 11 ne am na ko ak 6 défaites bi ñëw na ci ka nga ne ni moom moo di Tyson tamit ci loo xam ne ni daal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 muy zos mu parcelle zos ba nga xam ne nii moo nekk ca dóor dóoraat zos daal la mu xëy xam ne daal nañ li am ba des daal li nga xam ne nii moom moo di fond covid 19 yi daal la sos wax ne daal dañu cee war a jox lamb ji seenub cër lañ ca yeyoon nañ leen ko jox sos daal xëy na tey moom di défendre waa lamb ji yëglikaay bi di sun lamb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi ka nga xam ne nii nag moom moo jiite làmb ji di biraa seen moom yëglikaay bi xamal nañu ne daal dafa ñàkk magam joo xam ni daal magam ju góor la démb fa nga xam ne ni moo di ca Kaolack mag ja nag mu ngi doon wuyoo ci turu Mamadou Sène yëglikaay bi nag amoon na lu toll ci juróom benn fukki at ak juróom-ñeent maanaam 69 ans ba tey sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi dem na ba Thiès fekki ko fa muy Sidi Diakhaté di promoteur ba nga xam ne nii daal moo nekk fa nga xam ne nii moom moo di ca Kajoor maanaam ca région de Thiès Sidi nag moom la mu xëy di wax daal moom huis clos ba daal la jàpp ne moom pare na ngir organiser ci wàllum maanaam kon moom d'accord na ca yëglikaay bi tamit xëy na tey ñëw sëppil ñetti xale yoo xam ne daal yëglikaay bi jàpp na ne day ay phénomène lañu ci seen génération maanaam ci boo leen xoolee réyuñu gudduñu waaye saa bu ñu jógee daal nga xam ne jóg nañu ka ca jëkk mooy Liss Ndiago bu jàmm kër moom yëglikaay bi la mu ko tudde mooy moo roi ci wàllu mobilisation moom Liss Ndiago ka mu war a bëlee di caaturobés tamit mel ni ki moom itam nekk na xale boo xam ne ni daal talent pire pire pire am na ko ci wàllum lamb alliance Balde tamit foofa la bokk koo xam ne moom tamit wàllum xeex ci lamb moom ku ne xam na ko ci muy ñetti xale yoo xam ne daal tey Abdoulaye Dembélé moo xëy ñëw toppal ñu ñetti ñooñu ba tey bu ñu continuer jóge foofu dem record record moom lam nu xëy xamal ci wàllum wiik loo daal dafa mel ni Ama Baldé ak Modou Lô moom nangu nañ ko ñoom moom validé nañu ngir waram nangoo bëri nag la nga xam ne di huis clos record a xëy ñëw wax nu ko waaye record am na beneen jàngat boo xam ne defal nañ ko wala mu toppal ñu ko mooy la nga xam ne nii daal moom lañ fi wax ne mbër yi bala ñoo bëre 72 heures dañ leen di testé lu jëm ci wàllum coronavirus bi mu mel ni ki nag yëglikaay bi jàpp a bindu bëree mu mel ni kon ñooñu boo xoolee 2 millions 560 mille francs boo dajalee lañ leen war a testé loolu lay doon yëglikaay bi nag loolu la xëy tey di laaj maanaam loolu fu muy jóge ku ko joxe ak kan moo koy fay mel ni kon daal record tey na samp laaj boo xam ne bu ama am solo te itam nag bu jara bàyyi xel la journal bi di record a xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom ña nga xam ne tamit ñoom ñoo di waa Ariels ña nga xam ne nii ñoo yore école de yaag écrier te ka nga xam ne moom moo di Malick ñi ngi jiite leen daal tey jii moom dana danañu amal point de presse fa nga xam ne moo di ca Pikine ndax it ñoom dañoo jàpp ne dañ leen a bëgg fàtte tey itam nag mbaam gàtt na waaye moo bëggee dégg-dëgg xulle ci jur gi la bokk waaye tey ku ne xam na ne mooy alxemes tey ku ne xam na ne mooy le 31 décembre at mi nu xam na moo di 2020 ñu war a jëm suba incha allahu rabbi wala tey ci mil wi ci 2021 nuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen ñu koy ñaan te di ko sant li nga xam ne nii dundu nañ ko ci 2020 bi ci ay jafe-jafe ak i xat-xat ak ay ñàkk yu bëri yal na yàlla dimbilinu ba 2021 bi ñu bañ caa gis lu mel ni ki noonu maanaam lépp luñ ci ragal yàlla nu ngi lay ñaan nga dàqal ñu ko waaye itam xulle du mën a ñàkk faw ñu ñaanal ñëpp jàmm balu ñëpp ak di yàlla Sénégal def ko ci àddina bi te coronavirus bi jaaree fi topp 2021 bi dem ba faw ak beneen feebar bu nekk ci àddina bi mbokk yi nuyuwaat naa leen ziaraat leen balu leen àq ah, di leen baal àq di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ah bala ñoo sori dañuy nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre ñu mën a ne parce que mën nañ ne daal amuñu seen fay comme ni ma koy waxee parce que dama naan du ma ko tey ci eh, ci Equivox rek dama naan ca Leewtoo TV ca Leewtoo ba tey ci Equivox ngeen di ñu topp di ñu soutenir ci côté bu ne amuñu seen fay kuñ ci woo jotuñ koo xam ne yëkkati nga sa téléphone boo Babacar jotoo ko wala nga yónnee ko vocal mu yéex koo tontu ak lu mu mën a doon rek jàpp leen ni jëfi doomu aadama la waaye du ak tayef du ñàkk a faale du ñàkk a weg loolu mënta ne parce que li may wax chaque jour rek hmm, yaakaar naa waykat boo xoon na ko feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya te ñun bu dee ay liir bu ñu déemee bay dox di dëgëral tuuti yéen ñi ñu seetaan la yéen a ñu jàppale kon amuñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla yan leen yàlla defal jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm yokk seen i xéewal mu cël leen ñu ngi gis commentaire yi saa su ne yéen a ngi ñuy bind di ñu encouragé parce que li may wax rek ki la naan li ngay liggéey baax na dafa bëgg nga gën a yokk mais ki tamit jubbantil lii defal lii kooku tamit dafa bëgg nga gën a yokk waaye ku ci nekk daal la ngay wax ñu ngi ciy bàyyi xel des fois nag xëy na nga gis ñoo xam ne tamit même bu dul fii sax mais di feneen di nga gis ñoo xam ne dinañ bind commentaire wax lu dul noonu nag sul noonu maanaam lu négatif ngeen jégal ma maanaam saaga yooyu tamit ñun ñëpp ñoo far on est ensemble yooyu bu ma sañoon dinañ ko moytu parce que amul benn njariñ parce que damay wax ne xulle fépp fu fépp foo dégg nit boo xam ne yegg na ci xaw ma wala maa tey wala yegg ci di saaga dama naan kon amatul argument kon nañu fexe bay am ay argument maanaam ku gis lu la neexul ci foo ko mën a gis moo xam télévision la moo xam Equivox la moo xam Lit TV la moo xam arène bi la moo xam Dakaractu moo xam Sénégo wala TFM wala Zik FM wala fu mu mën a doon média bu mu mën a doon ba fa gisee loola naqari wala lu nga dégg ko fa war nga ko mën a dénoncer boo ko boo waree mënee jot borom nga jot ko wax ak moom mu jubbanti soo ko mënee bind nga bind ko parce loolu defe naa ne mooy gën te itam yaakaar naa ne Sénégal loolu lañ war a xam parce ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñu toog fii na yàlla moo dogal ñu ñuy toog kay na ba na ba keneen ne feneen keneen ne feneen mais nañu ñaan yàlla rek ku ci ne ñun ñu ngi ñaan fa nga ne la fa bëgg yàlla na nga ko réussir barke bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yàlla jeexal alhamdulilah rabbil alamin te lépp lu ñu ragaloon rek wala lu ñu jaaxaloon ci 2020 bi rek yàlla nañ ko yàlla dàqal ci 2021 bi di balu ñëpp ak yéen ñëpp nag ku ci waay fu ci waay mën rek ñu ngi balu ak bu ñu ñëwee nag ci yëglekaay yi record wala boog sunu làmb ñëw na tey ci lag ak Euh, euh, ak Balla ñaar ñoo xam ne ni ku ne xam na nañu bokke ak nañu dëkk ca Géejawaay waa moo tax mu tuddee ko l'impossible combat combat boo xam ne mënta ne waaw loolu moom defe naa ne bu dee combat la it mënta ne Lac ak Balla waaye li am solo moom yëglikaay bi da leen a topp ci seen jaar-jaar 34 ans pour Balla 38 ans pour Lac boo xoolee carrière 15 ans pour Balla 16 ans pour Lac parce que Lac 2004 la ñëw Balla ñëw 2005 kon loolu mooy li nga xam ne moo am ay combats 25 combats pour Balla 18 combats pour Lac ay victoire Balla am na 21 Lac am na 13 défaite Balla am na 4 Lac am 2 yaa ngi dégg boo xoolee kalaf tamit Balla gagné na ko Lac gagné na ko. yaa ngi dégg mais prix ANPS Balla rek moo ko gagné mais prix bu fair play tamit lag rek moo ko gagné mel ni ñaar la ñoo xam ne ñoo bokk génération parce que ñoo duggandoo ci lamb entre 2004 ak 2005 defe naa benn ñu nekk ñoo xam seen ànd ci lamb na boobu ba tey muy Lac ak Balla muy diggante boo xam ne bu ra tax la ñu leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen ko sàmmal ndax ànd moom xulle maa ngi koy wax fu mu dëgëre rek faw tànkam lu di fa am waaw bu tànkam lu amul àndu du sotti surtout ñaar ñoo xam ne nag ñoo bokk lu ñuy def bokk génération bokki adversaire bokku bëgg-bëgg waaye itam yaakaar naa ñoom ñaar ku ci ne am nga xel mu toll ni ak ñi la wër naa ne euh, luy gën a rataxal seen diggante ku gën a defar la ñuy taxaw muy Lac muy Balla parce que ñoom ñaar ñëpp ay euh, li ñu nekk waaw kon loolu noonu la demee keneen koo xam tamit seen mag la tey ak kaw ya fa nga xam ne na fa ci ay combat yu marqué ne xam ne diggante mag Mohamed mu koy defe naa loolu kenn dootu ko fat ndax boobu Tyson xale ñëw ci làmb ji ñu naan ah est ce que xale bi xale bi mënta bëre mu ñëw rek ñi fi fekkoon ñëpp mu ramassé leen jàll bokk na ci Mohamed Alimi Manga 2 dem ti yàlla tubaabu joor yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana daan ñoo ñëpp ñu ne nag fu muy taxaw ñu jox ko Tafa ku ne xam na ko 97 seen bëre ba Demba Diop jël ba mu ko daan kera muy koo xam ne moom itam dafa révolutionné làmb Mohamed Ndao Tyson ñu koy nuyu di ko ziar borom Saloum l'homme de génération bul faale parce que doon naa dégg muy wax baat bu am solo te lu jar noonu na boo nit ki boo amee ndam maanaam nga moo xam ndam loo mën a am ak foo ko mën a amee da ngay ànd ak humilité dal waaw yaa ngi dégg nee na tamit boo amee defet itam da ngay da da ngay muñ waaw maanaam nit ku lu la mën a arrivé rek nga muñ yaa ngi dégg maanaam kon Tyson nekk na koo xam ne ci làmb royukaay la Azou Diop chargé de comme Lac de Guiers numéro 2 wala agent moom itam xëy na di wax daan Eumeu seen la ñu wax la wax pour dem nekk roi des arènes waaw loolu moom li koy may defe naa xam ngeen ko ndax du luñ leen di wax am ngeen seen mbër macha allah entraîné rek liggéey defe naa bu ngeen ca yeggee yéen ak ëmma dinañu xool fan la wane di mujjee bu ci fond wax man nag waaw wax nga dëgg donte nee nga léegi ne xam na ne bu ñu xamee jos moom xam la defe naa kon tey bu xëyee taxaw di défendre lamb defe naa ne la la war kese kese moom nga def jos ñu koy nuyu di ko jaar xam naa nag sant wa rek ko yàq ngom ji faw mu changé ko ndax ngome nii moom ma leen di nuyu di leen ziar dañu bëgg lekk trop trop ma ciy profité nuyu sama waa kër nijaay ca mbomboy reefan sama nijaay njàmmi ngom ak aada ak seen njaboot yépp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm Sidi Jaxate moom ànd na ci huis promoteur u Thiès ku ne xam ne ni moo tëgg Gambie ak assurance moom ànd na ci waaw loolu xëy tey wax suñu tonton Sidi ñu koy nuyu di ko moom tamit vraiment waaw loolu am na solo trop trop yëglikaay bi ñëw na ci moom waaye leneen loo xam ne tamit record dañ fay dem mu mel ni huis clos ba tamit am na ñeneen ñoo xam ne ànd nañ ci muy Ama solo lu jar a bàyyi xel xulli mooy ah, test yi pour covid bi balaa ñoo bëre tey bu fekkee 64 litres bindu daa mel ni ko yëglikaay bi xayma ñu war a bind ñu war a testé leen ah ci xaalis daa mel ni ba day dem ci 2 millions 560 mille francs mu ne nag loolu fu muy jóge ak ku koy joxe loolu nag moo jar a laaj est-ce que état mooy joxe ndax li promoteur boo ko joxe loo moom du tëgg ndax tegam mise ba pare bëgg a fayaat maanaam la ñuy testé ak ñay ñëw moo xam batterie la ñay tëgg ak ñay way ah loolu su ko promoteur bi na defe naa su keroogee mu bañ a tëgg moo ko koy gënal te defe naa loolu ci kanam tuuti di ngeen ci gis benn vidéo boo xam ne jàk si ñëw boo xam ne bu ah na ko jibi ama ci feebar boo xam ne tëraloon na ko waaye foofu dama fiy remercier sama rak sama xarit Lamine Seck parce gis naa wax dëgg yàlla nga def loo xam ne ci feebaru jibi ama boobu spécial la lu jar a wax la parce que gis nañ ne na ngi yow itam loolu rafet ndax tax nga ñu bëree bëri yëg feebaram tax nga ñu bëree bëri ñëw dimbali ko ndax gis nañ ñu bëri le ministre ancien de l'intérieur ñëw na dimbali ko gis nañ Waly gis nañ Aziz Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax xam nga mooy loolu ak waa ëttu lamb ñëpp ñëw nañ dimbali ko te loolu lépp yow vraiment am na jéego bu rëy boo ci def Lamine kon yow itam macha allah sa taxawaay rafet na lay ñaanal rek yàlla gudd fan ak wér yaram yàlla gën a nàmm xel mi xam nga parce que allah li ngay liggéey am na solo trop Lamine Lutte TV di nuyu jàmm Sénégal di baluwaat ñëpp àq daal fu ci waay mën a nekk rek ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Mbacke Kebe ñoom Donga Fall ñoom ñëpp nuyu naa leen ñoom maam jaara bu ngel jon di ko souhaiter joyeux anniversaire maam jaara bu ngel jon tey anniversaire na 31 décembre yàlla na nga ko yàgg a fête maam jaara boroom ngunjaan li la ñaanal jàmm bu baax a baax a baax xulle yow tamit di la nuyu di nuyu waa saalum parce que nag ma la xulle saalum saalum la El Hadj maa ngi nuyu waa saalum yépp rawatina nag waa kër Baye Niass ak waa kër maam Khalifa Niass waa lew na ak waa Mérina ak bépp kilifa diine bu ne ci saalum bi rek moo xam chrétien la moo xam ku mën a doon yàlla na jàmm yàgg Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam